la meilleure école du Sénégal. Awa nekk euh, treize nekk adjointe trésorière euh, ci association parents d'élèves bu Thiès académie Mariama Diallo donc euh, école bi nag dafa nekk école boo xam ne li tax ñun ñu yóbbu fa suñu ay doom du du du neen donc c'est un établissement benn école boo xam ne donc protection xale yi dañ koy dañ ko dañ ko respecté donc xale yi am jàng bu am qualité. vraiment jàngalekat yi fa nekk euh, accueillant bëgg nit donc bëgg xale école bi nag nekk école boo xam ne vraiment euh, euh, jàng xale yi ak ak seen éducation surtout ak ay valeurs yi ñu leen di inculquer dafa nekk foo am solo si ñoom ba tax na ñun en tant que parent dañ leen di remercier bu baax si loolu di remercier directrice bi nga xam ne pas directrice sax fondatrice su école bi mm, Ajaratu kayna nga xam ne dafa am moom ci boppam ay valeurs yi muy incarné ci à chaque fois ne fu sori la ne mais à chaque fois dafay jiital valeur yooyu pour que xale yi ñoom seen bopp ñu koy incarner donc ba tax na chaque année dafay primer xale yi yi gën a yaru dafa am benn euh, les euh, élèves yi nga xam ne ñoom ñoo gën a yaru ci at mi ñoom ñoom dañ leen di sax afficher ci biir école bi nga xam ne pour motiver les autres enfants yeneen xale yi pour ñu am comportement yu mel noonu nga xam ne kon loolu dafa am solo si moom am solo si ñun tamit en tant que parent école bi du ñu jóg si di changer niveau xale yi di di ko di ko améliorer bu baax a baax ba vraiment donc euh, chaque année résultats yi ñuy am donc duñ ko werante donc euh, chaque année ay résultats yu baax la ñuy am ci examen parce que CM2 la ñuy am donc euh, presque 100 pour cent lañ doon am di ñaan yàlla rek fii ak ay 10 ans wala 5 ans si kanam ñu bokk si école yi ñuy lim ci les meilleures Sénégal. Merci beaucoup. Assalamualaikum. Euh, je suis parent d'élèves euh, de l'école euh, Thiès euh, Académie Maria Diallo. Euh, J'ai mes deux enfants, Ufei Diangé. Vraiment, c'est une école que je recommande beaucoup au Thiessois, une école de référence, école euh, am rigueur. vraiment, je leur souhaite un très bon succès. Et de passage aussi, j'aimerais euh, j'aimerais féliciter encore euh, Madame Soukaina, la fondatrice de cette école. Vraiment, retourne woon euh, li ma doon indee samay doom foofu noonu parce que li gën a intéressé parents d'élèves bi mooy ki nga xam ne boo ko dénkee sa doom boo demee sa esprit gën tranquille vous voyez un du coup euh, c'est le cas y a rigueur am na aussi euh, discipline il y la ponctualité vraiment une école de référence vraiment kontaan naa ci trop e je remercie tout le corps euh, professoral maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp di remercier Soukeyna le directeur ba ci gardien bi vraiment gis naa ne ñëpp euh, ñu ngi ñu ñu ngi ci daal ñu